خير لا اله الا الله خير مخيا واوا بروا خير الخلق حماد خير لا لا لا لا خير وخير الخير لا لا لا لا يا يا يا يا مج يا مدم جديك يا ويسا bindi yaa alxayra

jërëjëf mujaab xalifa Cheikh Massamba Mbacké jërëjëf mujiib xalifa Serigne Saliou Mbacké borom jàpp ndal jërëjëf mujaab xalifa Cheikh Abdoulaye Mbacké borom Touba Belel jërëjëf xalifa Cheikh Abdou Khadre Mbacké jili borom Baxdad jërëjëf lay Mbàkke ma law anni bi nabi kula waridin xadim borom Tuubaa njareem sëriñ Cheikh moom Moussa Mbacke baay sëriñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma maami sëriñ Mbacke soxna loo borom tay fak bay la baay Cheikh Moussa Ndiagne Mbacke borom nebooji baay sëriñ Xadim Mbacke sëriñ sa Ndiaro Sane Ndiaye baay sëriñ Mbay Faalo Ndiaye sëriñ Cheikh Mariamu Ndiaye sëriñ Cheikh Basila Ndiaye Cheikh Abdou Khadar Ndiaye Elimane sëriñ Ndiaro Sane Ndiaye jërëjëf ma law way ñibbi ñal ba Saliou Mbacké bàyyi soxla walam Mbacké sëñ Saliou Mbacké si Moussa Mbacké sëñ Saliou Mbacké sëñ Cheikh Mbacké sëñ Saliou Mbacké Cheikh Abdourahmane Mbacké sëñ Saliou Mbacké sëñ Modou Mbacké Cheikh Abdoulaye Mbacké borom jàmm ak alxuraan borom dara njurul borom xabbaan ak lagan dira jëf ma boole bi loxo ca ko ñu magal sëñ Fallu borom di nekk aliye bay si boobu bay si du Karim Mbàkke borom makaarim alaxlaa borom lépp ak fépp ak ñëpp jërëjëf Samba Mbakke bàyyi sëñ Modou Fati Xari sëñ Masamba sëñ Mamadan Mbakke sëñ Seex Mbakke sëñ Modou Fati Xari borom jàmm ak yërmande jërëjëf ma Allahu ani bi nabi kula wa abidin ki yokk jumaay sëñ Bamba ji yeesal daaray Kamil Seex Abdoulaat Mbakke borom Tuubaa belal bàyyi sëñ Sidi ak sëñ Seexuna Mbakke soxna Waalo Mbakke Seex Abdoulaat Mbakke jërëjëf ma am Seex Ibrahima Fall lamp sëñ Seex Ndigal Fall lamp sëñ Seex Fall Baye Góor lamp am du Yaasin Fall jërëjëf ma allahu anni bi nabi kula walidin xalifa maam Cheikh Issa jenn borom jenn ak lagan bàyyi Serigne Bara jenn Serigne Siri Naar jenn borom jàmm ak yërmande borom yaari jumaa yi sell ma allahu doonu Serigne Bamba ku ci aw doogalam te doo réer te doo dajee kay degula naan fii du yoonu Tuubaa ku loxo ku bëgg Serigne Fallou loxo ku bëgg Serigne Fallou loxo ku bëgg Serigne Fallou loxo bàyyi Serigne Abo Fallou jërëjëf jaraw lak ma allahu anni bi nabi kula faridin maam Cheikh daa bay maam Seynabou Ndiaye Serigne Cheikh Fall Baye góor Serigne Amdi Yasir Fall Serigne Cheikh Ndigal Fall jàmbaari Serigne Bamba jërëjëf ma allahu xaadim borom Tuubaa njaareem sëriñ bi sëñ Baara Mbàkke borom guy mbir ak Mbàkke Kajoor bàyyi sëriñ si Ahmadu Lay Mbàkke maami sëñ xaadim Moodu Baara Mbàkke sëriñ si Abdou Sis Mbàkke jërëjëf bi nabi kulla wasirin wasir li bi abdan xadiman bi la xaala Oh! المصطفى مخجل الهيام xarit Omar Ba ngërëm jërëjëf xukayre man laa naane ak Babacar Sadikh danoo xuus ci géejug Bamba bay xelin dox mu neex te xukayre man laa naane Serigne Saliou Mbacké borom jàmm ak yërmande Serigne Saliou borom diine ak alxuraan Serigne Saliou Mbacké borom jàpp na la xabaan ak lagan dira jàpp xukayre man laa naane daw mi borom daw mee kurman jaawa kooko defar dagu karamal laa naane ak maa bëggar bamba bay xeli ndox mu naan dagu ñaari loxo ca kaw ñu màggal sëñ ma sambam sëñ ma madal mbake borom tuba mbeela jërëjëf Cheikh Issa borom jën ak lagan jërëjëf jëgu kayre man laa naane ak Babacar Sadiq danoo xuus ci géejug Bamba bay xeli ndox mu neex jëgu kayre man laa naane xalifa sëñ Daaru Sën Njaay si Abdu Xaadar Njaay jërëjëf su may lekk xarit ñi beeg lambay jërëjëf baa fay naam sëriñ boo mbàggeem sëñ Fallu mbàggi jërëjëf man de su may lekk sëñ Abdu Karim mbàggeem sëñ Fallu jërëjëf baa fay naam sëñ Jili Mbàkke si ji ji addina manun gaa ñu diwal ji nun aw fi alikin manun gaa xaw soxna ñu ñëpp maase jóg taxaw ca kaw ñu màggal soxna jaara doole soxna jaara ñu ñëpp jóg taxaw ca kaw màggal soxna jaara parce que yàlla nga tàggoo bàkkaar barkal soxna jaara am soxna jaara si ji ji adina manugo indi wan jiro aw aligil manugo kaw soxna jaara si ji ji adina manugo toroxan si wal jiro aw fil aligil manugo soxna jaara ziki am sama jaara yaay ndey barkat ndi war jaara yaay ndey barkat aleki manu ngogo soxna jaara ziki ji adina manu ngogo nga boroxat nga boroxat nga boroxat nga boroxat am soxna jaara ziki adina manu ngogo ndi war jaara yaay ndey barkat aleki manu soxna jaara sa gi manu ko xam mi aw fil malikil manu manu boppam soxna jaara moo di bu doy bismillahi te ma jóg way ci ngeen yu ma jóg manu boppam soxna jaara moo di Malick bu la baax a Malick yaay day bor sa mbindeef yi tey du nu raw ba muy dellu ci ni ñaate yaram wane mu demoon na bu sa Malick bu gee yoon kon mbindeef yi tey du nu raw maam waye yiw nga de way nga de borom nga de borom am yaram melu noppi tey fee nga aw la yàlla jox baar am waye yiw te way nga te borom nga te borom nga te lu noppi day sellal yow la yàlla yokk baar nga maam bu dee ba nu sokk ak joone du nu woon jaara loolu ko def kat loolu ko def kat soxna jaara la nu wóolu nu wan kiinu waan dojo a xojul ci am nen soxna jaara lan woon maam ma ta julli te jaabul ma ta julli te wér di war garam buur masa julli te jaabol masa julli dara kay dangal tumal gom ali war garam maam nu ji nay dëkkan doo maam nu ji ay jëf ji la ko war jëf na la ko war tala anta mun maaram nu ji ay dëkkan doo nu ji ay jëkk jigéen sona anta jaay tookum dara anta ca Daaru Salaam yàq sant ca Daaru Salaam ma waral moo def xaada maram ba waane rakiba may jaamam jang jair jabaatin ma waral moo def xaada anta gu nekk la jébal dala anta dem na la ko war do ngay xay na la ko war na jaara moo del anta gu nekk la jébal dala anta dem na la ko war do ngay xay ja tool yaa soxna jaara moo del yàq di yàq di jéembal salaan te demuloo la ko war da ngay xëy jënd la ko war soxna jaara moo leen yàq di yàq di yàq di jéembal salaan te demuloo la ko war yaa soxna jaara moo leen ay sunu maas la ko bi ko daan raatal si ci jaraw la mu ne tawu fa borom tuub jaraw la ke faal jaraw la muy leer dal seen ner ba muy dal doroban borom Tuuba ko jawal ba muy leer waa dawit jëndam yaa nga jiite yëpp jëpp naa jab jal dëndam yëpp fanaa jab jal dëndam yëpp fanaa jab jal dëndam yëpp fanaa jab jal Bamba moo di nekk ba Seex Ibra di lamp bay leer yaa nga jiite yëpp fanaa jab jal Bamba mooy ba Seex Raba di lampu bay leen maam soxna Jaara yaa ba mi jeeñ ba mu la wallaay dagala dëgg dungu kenn ku mar ba gu gandu tey ba ñaawal soxna Jaara yaa ba mi jeeñ ba mu la wallaay dëgg dungu kenn ku mar ba gu gandu fi nu toog ba baraxaan dëgg dungu kenn ku mar ba gu gandu tey ba ñaawal dëgg dungu kenn ku mar ba gu gandu tey ba ñaawal dëgg dungu kenn ku mar ba gu gandu tey jeex na déggatu fi kenn ko mar Touba Daaru Anwar déggatu fi kenn ko mar ba ko gàddu tey bañ a wal di la ilaha illallah xayrul anbiya Mustafa ma ci danaa la way danaa la kañ ba lee laa ilaaha illallah xayrul anbiyaa nabi ma doy te ma ko doy laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah xayrul anbiyaa kon jege bàyyi la la fa la la la illa la dul ko nag yow mu ñaaw faal bàyyi la la fa kon jege bàyyi la la fa la ila illa la xayrul anbiya bàyyi asan faal sami dina koy faal Cheikh Ibrahima la ila la xayrul anbiyaa mami basal mami mudu amin tafal Cheikh Ibrahima la ilaha illa la xayrul anbiyaa mami basal mami mudu amin tafal Cheikh Ibrahima la ilaha illa la la ilaha illa la Mustafa ma ci Medina tadina la ilaha illa la la ilaha illa la xayrul anbiyaa yonen nabi sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey